asalaamaaleykum sunu mbokk yu ni déglu ci biir Sénégal ak ci biir Afrique ak ci biir Europe noo ngi jëm ci bis bu rëy le 6 mai lu waral mu rëy que ce sont rek ci sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu ka daan jottalil ca jàkka ya ca jumaa ya ca korite ga ca tabaski ya ca ña wuyu suñu Boroom ba turam du lié ko ak Cheikh Seydi El Hadji Malick bisu Amadou Mbaye Maodo le 6 mai ku ci joxe ndigal ki nanguloon di kan di sunu baay di sunu sëriñ El Hadji Aziz xalifa bu tedd ba moo ni woon en 1969 bis bi bu dellu seetee mois de mai képp ku sotoo ci mbay Mbaye Maodo ak képp ku sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ca man ko ñëwal Tiwaawan nu jàng alquran wasal fa ay kaamil ci guddi ga su ngeen ko mënee ngeen tàntal sang ba ci Madinatul Munawwara sallallahu taala alayhi wa sallam rasulullahi jàpp nañu ko rek ndigal jóge ci kan ki xam ni moo doon Seex Seydi El Hadji Malick nu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan lool ak yàlla may ko wér ba jumaa ji maamam sampaloon sunu borom tabaraka wa taala Tiwaawan mu jël ko jumaa jooyu mu yeggale ko mu Sidi Boubacar ndigal laa ngi jóge ci moom jaar ci kan rakkam ji xaritam bi soppeem bi ki xam ne mooy taw Alhaji Abdoul ak kan ak ki xam nag le 6 mai bu 11h jotee mooy nekk ci kër Amadou Mbaye Mbangu do jiiti kaamil bi moom la baayam bàyyoon ak yi nu koy wax si taalibe yëpp nu koy wax si Babacar Ndiol Fouta ak njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick yëpp ak kilifa diine yëpp ndigal loolu nag ñëw na nu koy def le waaw ndax am nañu patronné bis bu rëy boobu waaw waaw avec la bénédiction de Sidi Boubacar Ibn Malik Alaaji Mansour xalifa général Tijaan sama doomu turandoo moom ci boppam ak kan ak Serigne Maodo Sy Dabakh ak toute la famille de Cheikh Seydi El Hadji Malick sous kan ki xam ni vainqueur des coupes d'Afrique président vainqueur des coupes d'Afrique <laughs> mooy kan mooy le président de l'espoir mooy le gardien de la constitution l'homme des grands chantiers de l'État ak kan ak ki xam ni maax naa ko ko <laughs> xam naa les grandes dames waaye ci dëgg-dëgg servir le Sénégal ci musóor gu jot ga ak boobu jot ga ak kan ah kooku nag mooy Marème Faye waaye nag xam ngeen ne Amadou Mame Diop mi président de l'Assemblée nationale bis boobu yëg na ko ak kan moom ci boppam nag ak ki xam ni bu président ne ñuul na mu ne ñuul na bu nee weex na mu ne weex na mooy kan mooy Amadou Ba yaru lool baax lool am teggin ça mooy nag suñu premier ministre marraine ba surtout ma sëy ma Samba Diop ku sëñ ma Samba Diop moom la Xaadimu Rasuul di ko war su may dem màkk yow laay yóbbu mooy kan mooy ajaratu dee la wàdd ba ah mooy ki xam ne bàyyam lañ tudde Cheikh Amala boroom kurus ku mbagg fukki per yaag benn mooy paparacine si mi xam ni président conseil sénégalais du tourisme moom lañ ko nommé barki dem par décret doyul de waaye nag mooy meeru Podor it di kenn nag ci réew mi Sénégal yëpp xam kuy Pape Racine sur la présidence dina de kan ah da soxna Bali Souaïbou kooku nag bàyyam so Souaïbou mooy borom xam-xam rayoon lool mu Xaadim di li na kan di na ki doon si Basiru doon Xaadim Rasul présidence effective kan ah, ki xam ne mooy sëdd Mamadou Anta Samb mu xaddamu mu Seydi El Hadji Malick bu mag ba mooy kan mooy Aminata Mbengue Xaali mooy kan Aminata Mbengue Xaali ah mooy présidente au conseil nu koy yëgal nag Sénégal yëpp 11h nag ci la Seydi Aboubacar ibnu Alhaji man ibnu Alhaji Abdoul di yegg si wasal kaamil 14h ah sambiyeen yi ak mbuubeen yi nag nu woo leen guddi ga di guddi gu rëy nag cérémonie officielle am na waaw at mu jot président de la république moom ci boppam dana fa yebal benn membre du gouvernement mu présider bis bu mag boobu bis bi nag benn bis rek la ci Sénégal waaye nag daanu fa ñaanal it sunu ay mbokk yu xam ne duñu jiitu jiital ca ku wax Kumba Waali Jaañ doomu ajaratu ndey ndak sëy rakku leen a jaañ ak kan ak keni woon keroog sëy Babacar yaa woote pour jumaa ji Cheikh Seydi El Hadji Malick sama cent millions ngi nii provisoirement mooy kan mooy muqaddam ba alhaaji Dame jom Mansour ñoom ñëpp bis bu boobu daanu leen ñaanal Sidi Boubacar ak ñeneen ñu xam ne jiitu nunu wuju sunu borom ta wa taala ku mel ne Cheikh Ousmane Diagne ku mel ne alhaaji Amad Sanwañ Ayda Ngóone ak Ayda Aminata ak ki xam ne noonu ko tuddee Amadou Mbaye Maodo ñoom ñëpp daan leen ñaanal ci bis bu boobu xam ni ci dëgg-dëgg Aïda Amité di doomu góor gi Amadou Mbaye Maodo Aïda Ngoné di doomu mbay Mbaye Maodo ak ku wax Amadou Babacar Sarr xam naa dégg ngeen ko mooy secrétaire général du parti socialiste du Sénégal et de la Mauritanie ak mu xaddam bu mag bi nag Alhaji Dame Diop Mansour léegi ma bàyyi kaddu gi ak sama turno Hadj Mansour mu sànni ci ay kaddu su paree Ousmane it sànni ci kaddu. jërëjëf Pape yaakaar naa ci dëgg-dëgg benn date rek la mooy le 6 mai ca du ci woon nag képp kuy wax ashadanu an laa ilaha illa allah du ci woo waa Tiwaawan yëpp lu dalee koñ jàkk ak Tiwaawan gi lu ko wër ñu ngi leen woo ci guddi ga nga xam ne nag ndigal lañ ci am bu jógee comme ni ko sama turandoo waxee ci ki nga xam ne moo doon woon baayam ki nga xam ne moo doonu woon ay magam di Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy 57 ba 97 kon ñu ngi ci woo ñëpp ci journée de prière bu mag boobu ñuy amal le 6 mai 2023 ca Tiwaawan Ousmane jërëjëf Hadj Mansour ci ndigalu El Hadj mbay Mbaye mi nga xam ne nii mooy xalifa góor gi Amadou Mbaye Maodo ñoo ngi ci woo daayira yëpp daayira Aram Caam nday Faatu Puy daayira bu ñi bu sëriñ Babacar Si Mansour Safeetu Gey daayira Mutamasikina bu Tiwaawan daayira Ahmadiya daayira Kiram ak daayira nag doomam ji xaritam bi jarbaatam bi di soxna kalambay Mbaye di woo jullit yëpp di ko di leen ñaan bu ko kenn manqué. télévision yëpp rek génne nañu ko ñëpp doog leen di gërëm ak di waaye bii nag sama sama boso ku ko jiite ñu ni Bécaye Mbaye <laughs> kuy Bécaye Mbaye le grand communicateur traditionnel l'intellectuel kuy Bécaye Mbaye moom la ñu tuddee Bécaye mu mag ma kuy Bécaye bay mooy kii jubóog Sénégal yëpp. ak sénégalaises yëpp ngeen déggoon ko ca rajo Walfadjri déggoon ko ci 2S muy tàllal loxom di tàll loxo yàlla ak liggéey neem ak barke baayam ba tey mu samp télévision bi bii nag sunu télévision la nag nu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér rendez-vous bi nag noo ngi woo communicateur yëpp góor ñi ak jigéen ñi ñoom ñëpp maa ngi leen di invité le si mai à Tivaouane ca sang bu tedd ba ka doon doon bàyyam nunu woon ko lool di Seydi Abdou Aziz Al Amine daan na wax nit kenn du ko xeebal bésam kenn du ko xeebal soxlaam kenn du ko xeebal sëriñam di ci invité nag ki xam ni mooy Bass Khadim Awa Ba ndax moom mooy ànd ak Papa Racine ak kan ak nag le député du peuple lom <laughs> ah, ah, sincère envers le chef de l'État fidèle ah, ndeysaan envers le chef de l'État muy kan muy le député Farba Ngom mooy ànd ak ñoom ñoom ñëpp ci bis bu mag boobu di gërëm nag sénégalais yëpp ndax Sénégal yëpp samay xarit lañu samay soppe lañu guddi gi nag papa aan mi ngeen xam min ko lool ci TFM mooy wax ku sang bu tëdd ci Madinatul Munawwara di nettali ay xasida sunu maam Cheikh Seydi El Hadji ñu koy woy ah ña xam ne seen maam noo daan woyal sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu Abdou Aziz Mbaye ak i jarbaatam ak moom ci boppam mooy ne micro central kuy ne ca Bécaye Mbaye mi moom télévision bi ak kan ah ak kan ak Amadou Mbaye Garmi ak Khadim Samb ak communicateur yëpp xam ngeen nag Ablaye Mbaye Peex moo nekk sunu invité d'honneur ci bis bu mag boobu ndax moom du ko manqué Mansour Alhaji Abdoul Aziz ca yar ya ca teggin ya ca xam ba moom ci boppam nag mooy présider guddi gu mag googu mbagam Sidi Aboubacar ak Ache Malick jox ko ci digal waaye bis bi daal aw mu bis bu ko ëpp kon le 6 mai képp ku wax ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu taala wa di ko fàttewu ma sang ba ca Touba nga xam ni lu xew mu ne Ablaye Mbaye Peex demal ma ca Alaaji Mansour Mbaye joxal ma ko teraanga jooju kooku mooy kan mooy ki doon Sëñ Basiru doonu Xaadimu Rasul di ko yëgal Sénégalais yëpp